xeetu yéenekaay yi ñu ànd ci ak sali Saliou Seck. daanaka xëy di jàngat kàddu yu tedd waaye kàddu it am solo yu tukkee ci sunu kilifa yu tedd yi ci réew mi ci kaw màggalu gane si àddina ngën gi mbindeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci observateur xalifa bu tedd bi ci Tiwaawoon sëriñ Babacar Sy Mansour yëkkati kàddu ga ci naan nag juróom benn fukki ati weranteg tibbante tànk doy na jot nañu dakkal ko ci miim réew leneen lu nu jàng ci ay digle moom xalifa bu tedd bi ci les échos bokk na ca ñu xajoonte sunu biir di respecté kilifa ci réew mi maanaam les autorités ñu jàppale it may loxo baykat yi sàkku na it ci opposition beeg nguur gi ñu jiital waxtaan di dialogue Maroc kàddu yeneen yéenekaay bi di Les Échos xëy kañ mooy sëriñ Mansour Sy Dabakh yéenekaay bi ne ci gàttal doon na dëgg bàyyi ja sëriñ Abdou Aziz Sy Dabakh source a di ko feelu ak lenn ci kàddu yi moom sëriñ Mansour Sy Dabakh yu mu jàllale bokk na ca muy xamle ni xastante bi doy na ci réew mi ca nag fii ci Sénégal soxlawun fi sëriñ yuy taalam réew ca su lii dakkul new doxalin daanu ànd maase faatu duggandoo safar ñi ñu dénk ci réew mi ndomba yu kawe njaboot kilifa gu tedd gi ca Medina Baye te Cheikh Maay Ibrahima Niass ay kàddoom ci yéenekaay bi la mu sàkku ci kilifa yi new doxalin mooy njub xereñ ak responsabilité cay moytu kàddu yi mën a dugal réew mi ci guute Le Soleil xëy ne ay naata ngoom ci diglay xalifa bu tedd bi ca Tiwaawoon jëm ci ñu ànd maase dellu ci sunu borom subhaanahu wa taala tey nàndaloo ci njàngale Cheikh Sidi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ngir tabax penc mu gën moytu wax ju bon ak jëf ja saaga yi naka noonu xiiroog ngaayu politique ca kaw la bokk na fa ci digle yi fa ci ku tedd gi Ibrahima Niass di ñu dellu ca tool ya kilifa geneen ay kàddoom ci yéenekaay bi ci kaw gàmmug ren gi Serigne Moustapha Sy Al Maktoum ci Les Échos joxañ na fa nguur gi ci pexeem yu ñu yëkkati saa su ne jëmee ci moom mu ne lu ci mel ni passeport am buñ ko ni woon ca Maroc validul waraloon ak dellu seem ca lépp mu ne di pexey nguur gu Sénégal njiit la président Macky Sall président Macky Sall mi mu jàpp ne da ko ragal moom sëñ bi ak kuréelam sëriñ Moustapha Sy ba tey ci yéenekaay beneen Le Quotidien ne Macky Sall Macky Sall mi mu jàpp ne mooy adversaire bi mu am du ko mës a teree bu ne ñu ngi koy def jëmee ci moom ci wàllu politique sëñ bi ci l'évidence ne tey la gën a ànd ak Ousmane Sonko assemblée nationale bis bu fa blocage amee ndax président Macky dina mën a jiite moom dong loolee di laaj bu tukkee ci yéenikaay bi di la mandat ñu des ci assemblée nationale ak Ismaïla Madior Fall mi artu soxna Aminata Touré ne dañu koy tekki jël ndomboy tànk yi député am enquête mel ni ku naan ko déet loolee du lu yoon wax bu nu sukkandikoo ci xalaatu Aline Souaré ndax moom dafa gis ne soxna Aminata Touré ñu ngi ko fale ci liste mbootaay di coalition ca bu bàyyi woon sax a tekkil ndombaam la mbir mu yéeme di rapport bu FAO mbootaay gi yare lépp lu jëm ci wàllu dund ak mbay ci àddina di rapport bu mu def diggante weeru juin ak août ci Sénégal la mu wax boobéb rapport mooy lu toll ci ñaari millions ngi doomi Sénégal yu ab xiif di yor wàllu xew-xewu jamono libération xëy waxtaane village bii di Njéyeen ak faat gu fa faat Basiiru Mbay yéene kaay bi ne imaam Moox Mbay dafa tax rip moom ci paate gi moo jiite mbooloo ma ngànnaayi woon dem ki nga xamante ni mooy Basiiru Mbay nasoon na ko sax ca bés ba jiitu waaye da ko fekkoon ak mbooloo ca fa doom ja ñu songi ko ci gàttal yéenekaay bi di libération ne imam bi moo tëral plan bi faate jiite ko bokk ca dañuy des ak libération waaye bi yoon ak xibaaru bu ànd ak sag ak mbégte ak ndamal soxna Ndaté Cissé doomu Sénégal ci concours tarib alquranul karim ca Dubaï yëkkati na fa raaye bu Sénégal jiitu ci concours boo xamante ne juróom fukk ak ñaari réew umma islam bi ñoo ko séqoon tey jii ci talaata ji nag ñu fas yéene ko teeru ko sargal ko su ñibbisee Ndakaaru jërëjëf mu doonoon kon El Hadj Assane euh, Guèye doo delsi ci yéenekaay yi mbokk yi ñu ngi leen di gërëm yéen ci teewlu bi euh, safo beeg télévision Futur Média euh, ci kanam tuuti ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ak Mary Bey ci li si internet di leen di ñaanal ñu ngi doog ci am